ayca mbokk yi dalee nag jàmm ci seen euh, émission matinale go matinale comme nañ koy defee saa su nekk rek dañuy ànd ak yéen ci seen euh, ay euh, émission rawatina bi nga xamante ne nag moom la ñuy ci lii di Go Dakar TV ndax nag yàkkamti ngeen ko rek waaye xam ngeen bu ñu nekkee fin de semaine yi tamit laata ñuy dem rek faaw ñu ñëw andi leen li nga xamante ne ni moo gën a fës ci wàllu actualité ak i tamit lépp loo xam ne rek day jëm ci wàllu people ak it yeneen information une rubrique également ci biir euh, euh, go matinal euh, day ñëw waaye nag damay bokk ak plateau bi saa su bu gesto rek gis leen sama ku ci Abdel Malik également tey ñëw nag def bu bu doy bonjour ci bonjour toute belle merci pareillement aussi. c'est gentil. comme comme jamais. Bonjour Abdel Malik c'est mhm. le Nigérien. Oui, bonjour. Comment vas-tu Je vais à pied. <laughs> Ah J'espère que tu as, bien dormi. <laughs> oui, hmm? comme d'habitude. En tout cas, tu es mon bébé. Ah, En tout cas, tu es mhm, ah, voilà fël nga fu nooy <laughs> asalaamaaleykum euh, mbokk téléspectateurs yi safo sen chaîne digitale Go Dakar TV ñu ngi leen di nuyu euh, di leen euh, wax dal leen ak jamm sen émission Go Matinal comme chaque jour ñu koy défé ànd seeg ñaari ndaanaan yi tey nag vendredi 26 juillet man dinaa fi ñëw indi fi si ay faits divers indi leen sen horoscope ak yépp ak sama tanikat bu goor bi jóge Nigeria Mariama sa bëkk néeg bi sama bëkk néeg bi ah man sama bëkk néeg bi dama koo fan tey waaw yéen ñaar moom seen diggante lu yàlla xam ah, doon na papa dañ ko dañoo déggoo sax mhm. dañoo raccord noir noir noir noir ah on est raccord hein? dans les couleurs. waaw macha allah macha allah non nous tous les trois hein, de toute ouais, façon. tous les trois c' est juste que man dama am hmm. un peu de. dégradé voilà doré waaw mauve yooyu genre kii rose clair kii yow nag moom da nga ko kii bon en tout cas tu t'es bien sapé. waaw macha allah. bon vendredi noonu la ndax bëkk nekk day roy ci euh, mhm. sëriñ bi mhm. te comme yow yaay ibbi sape yaay jiite moom mu topp sa ginnaaw loo defeek noonu la ah, waaw waaw waaw exactement ziar nañ la waaw ñu ngi euh, sant allah subhanahu wa taala bu baax a baax di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci ajuma ji nga xam ne rek ci lañ nekk juma mubarak ci laay tàmbale daal leen ko wax yéen ñaar mais également wax ko téléspectateurs yi nga xamné ne suné dañuy bëggee ñu ngi kontaan ci yeen également gis nañu retour yi continuer noonu continuer leen liker euh, abonné ci euh, YouTube euh, fi nga xamné rek moy Go Dakar Go Dakar TV a ci dem leen ci bu baaxa baax ñu ngi leen ci sant di leen gërëm no leen gëna ñëwé rek daf ñuy gëna neex kon on vous attend avec beaucoup de plaisir en tout cas le plaisir est là également de vous retrouver comme tous les jours notamment le vendredi nga xamné ne c'est un jour spécial euh, pour tout le monde pour les sénégalais en particulier nous avons fait koy dañ koy ni quoi Nous rek fait koy <laughs> voilà c'est merci beaucoup Abdel toujours à égal même. Ouais, ça c'est sûr. en tout cas merci beaucoup Moi, je nga xamante équipe euh, bu ngeen bi ngeen di euh, émission l'équipe équipe bu mag bi équipe mm. rubrique également équipe d'Information, information l'équipe ak équipe fun. fa kooree eh, waxtaan ndax nag seen matinal mhm. en plus yéen ngi ci fin de semaine nit ñi nag instant bi xam naa bu ñu wàccee tey dinañ xaw a ne ouf de soulagement tuuti mhm. coono yi kërën kërën gi daw beeg dugub bi ak génn bi eh, doon na loo xamante ne en fin de semaine da ngay bëgg rek daal di nag noppalu dallu tuuti mais nag ñun laataa ñu dem faaw ñu toog fii waxtaan ak yéen eh, ci li nga xamante ni en tout cas moo gën a fës ci bis bi bu ko defee nag ñu bàyyi leen loolu rek ndax moom nee buy dem da di namm donc balaa muy dem foo mu li ngeen moom moom yéen téléspectateurs yi ñuy seetaan ay ca Abdel bu ko defee nag xam mhm. nga laata euh, ñu gën a xuus ci biir euh, émission bi faw ñu waxtaanee li nga xamante ne nag moom moo jëm ci wàllub euh, météo mhm. mi ngi noonu Abdel maa ngi ko doon wax léegi météo bi nag lu ñu def lu dañ koy waxtaanee rek. Mhm. waxtaanee ko tuuti ndax nag gis nañ euh, deux derniers jours yi ñu génn euh, lii di euh, taw yi ñu nemmeeku ci biir réew mi donte sax nag daal di woon nañ koy annoncé pour ñu mën a jël mhm. li ñu xam te moom suñu ay précautions. Mhm. en tout cas ci parti yu bëri ci réew mi nemmeeku nañ fi ay taw yu bëri. macha allah ndoxu jàmm ak salaam nag wàcc na ci réew mi. donte nag dakaar sax nag taw bi taxu ko demee noonu contrairement ak yeneen région yi. nemeku nañ fa ay taw yu bari mhm. ay euh, toute une journée. wala am na ñoo xam ne sax ëppale nañ loolu ñun nag moom ñoo ci mujjee jot. Mhm. mais aussi c'était prévu donc waxoon nañu ko mais ba tey également liñ ci mën a jàpp mooy que ni tàngoor bi wàññeeku na diggante euh, mercredi ci guddi jàpp jeudi ba tey euh, ci vendredi bi li nga xamante ne ni moom moo ko waral rek bokk na ci taw yi nga xamante ne ni mhm. nemmeeku nañ ko fi on en avait besoin nag ndax nag tàngoon na trop ñu yoon bàyyi 40 degré ak yooyu noonu Abdel Malick. waaw yooyu lay noonu lay demee sant yàlla yàlla bu baakha baakha baax mom Dakar amna sama ben way bu ma Dakar sax de toute façon soxla wu ñu taw bu bari dañ ah, ci am lu ndaw rek dañ ci xewlu rek té sante yalla bàyyi ko mhm. waa àll ba nga xamné ñom lañ ko aajo ci walu wu nekk té tangor bi fa la gëna taré taree mhm. nak euh, li nga xamné mom moy euh, agriculture bi mbay mi voilà très bien mu nekk lo xamné c'est un avantage pour euh, les gox goxane du Sénégal mais mhm. tant mieux hein, sante yalla bu baax yalla na yalla xeb doli Mhm. amin amin mm. yàlla na yàlla xeb dool li aussi il faut que ñu euh, comprendre que c'est tout à fait normal parce que nag ñu ngi dugg au mois d'août euh, yàggatul dara donc ñu ngi ci euh, tolluwaay nawet bi digg nawet bi mhm. ci mm. ñi nga xamante ne ay baykat lañ wala tamit nekk ci càmm gi ak yeneen i mbir Aïcha mi ngi noonu bu ko defee nak ñu mën a wax ne nag tey ci juma ji mbir yi da gën a dal nag une accalmie boo xamante ne moom la ñu par mm. rapport ak lépp lu jëm ci taw bi ak it wàllu ngelaw bi donc tey ci aljuma ji dal lañ ci gën a mën a euh, nemmeeku Abdelmalik en tout cas mu nekkoon lu ñu mën a wax de façon totalement mhm. jëm ci wàllu météo bi ay ca mu ngi noonu bu noppee rek dañuy daal di continuer cette fois ci nag man dama yaakamte di dalal ah sëriñ bi euh, suñu tata la voyante borom kori ay ca tey euh, mun yàq programme chaque jour ma kaas ko na dañ naa aljuma dafa diis loo fi set rek yàlla na am lu am xaalis parce que mhm. loo gis mhm. d'habitude loolu lay am <laughs> man seetal ma gaaw ah bëgg néeg bi laay waxtaanee rek loolu. Mm, yow doo encaissé yow depuis que ngay encaissé nag. ayi ça dépend ah li mu ñu de moom laa leen par rapport à ta somme d' bi nga indi. ca la ñuy xoolee ndax dina baaxoo la dee. loolu mu ngi def moom dañuy xool xool. loolu sa liggéey la non léegi xam problème bi lan la. Mm. bëkk nekk bu ñu la joxee da nga war a jox sëriñ bi. mais sëriñ bi du gis. mais confiance absolue moo tax ñu teg la ci buntu nekk. waaw waaw dëgg la dëgg ci yow confiance yow yéen yaa seen liggéey bi des na non liggéey bi moom lu nit il faut nga yund ko xool ko c'est-à-dire que confiance amul. ah ko moom. ko bokk. Ah, bokk ñu liggéey bi yéen ñaar ko bokk man lay dafa war a ñëw indi man ma xool li ma ko ci jox mais gisuma. non li li seen ba pare li ma jaaxal chaque jour mais xool fu mu fële tey. ba boole dafa dem ba Nigéria. xaw ma xaalisu bëkk utiliser nii. moom la wax nii xam ne ne xaalisu natt bi ngay jël di ko yebbee mais moom xaalisu dafa changé montre montre <laughs> leer ci saa si. mais léegi ce qu'on va faire mooy da ngay ay caméra de surveillance. loolu laay def. attends attends nga ah, man de gis ah, loolu kay xanaa xanaa nopp Mariama waaye du sama bii sax ba ma déy la de pourtant damay dégg gu ma ko. <laughs> waa jubóo dina am du ñàkk am yéen ñaar. ah waa baax na dañ ko waxtaanee. waaw salaamaaleykum mbokk euh, téléspectateurs yi euh, dal leen ak jàmm ci seen horoscope ajjuma euh, bi de 26 juillet 2024 comme ni ma koy defee saa su nekk ànd ceeg sama bëkk nekk bi <laughs> nga xam ne gisuma dégguma dara lépp. mooy mooy gérer. Mm-hmm. <laughs> voilà bon Abdel tey nak ñi ngi commencé ci bélier. dafa bëgg bélier nak ba tax na xol xool dañu. bélier sama yaay bélier la. ah, ah waaw mais ay do ko sama yaay bélier la. waaw ah, mais bon mm-hmm. am nañu bélier am nañu taureau am nañu scorpion am nañu verseau am nañu balance am nañu ah, poisson mm-hmm. poisson. Aïcha bu <laughs> noppee léegi rek ñu dem ñëwaat tay nak bëgguma mbëggeel bu bëri wax ma beaucoup plus d'argent. waaw d'accord fi ne ah tamit yow da ngay taamu l'argent. ay kiwin hmm. ñu <laughs> euh, Bélier vous semblez particulièrement disposé à de nouvelles rencontres mhm. prenez garde à ne pas demander hmm. plus que votre relation waaw mu ngi noonu euh, yéen bélier euh, ci jamono ji taxaw ngeen ngir mën a tijji seen i buntu ndax taj bëgg ngeen jokkoo ak ñeneen ñu bees tax ñoo xam dañ leen di dajj ci paquet kon nag waajal leen bu baax seen bopp. Taureau cette journée pourrait être compliquée il semblerait que l'amour soit quelque peu

cancer cancer gis nga cancer bi sax léegi dama koy kii cancer. ah da nga koy neexal da nga koy aar koy neexal waaw ah, parce que yow yaa tax. <laughs> bien <laughs> vous êtes romantique. Mm -hmm. et mhm. dévoué à deux si vous commencez à vous ennuyer il ne faut pas oublier euh, que de temps à autre les activités. Mhm. waaw bunt yi euh, nga xam ne rek mooy buntu euh, mbëggeel dina ko bu baax maanaam lépp loo leen def rek ngeen koy def ak xol bu rafet ak ak yéene.

Quant au célibat, votre ego a une place euh, prépondérante. waaw li euh, ngeen nekk ci jamono ji manam maanaam ak ki ngeen bëgganteel te bobu lay nekkin daf leen euh, daf leen joie daf leen neex bu baakha baakha baax donc ñi nga xam ne nag amaguñu ku ñu nekkal euh moytu leen di gis seen bopp trop gaaw ji gis seen bopp parce que boo gaaw a sa bop ñi ngay jubul du ñu xaw bari dañuy xaw a tout rek. Vierge le moment est tout indiqué pour une rencontre inoubliable. Ressentez un élan de tendresse et d'affection pour l'autre. OK kay euh, Vierge boo bàyyee tout tuuti ci li la que rek ñàkkul nga gis koo xam rek euh, dina nekk nit ki nga doon wër euh, bu yàgg ba ba léegi ah ñi nga xam ne nag ngi ak wala ak soxna donc li nga xamné mom ngeen di yëg ci jamono ji moy que ki ngeen nekkal bëgg na leen ba jéggi lool ba romb lool bu yagg Balance, euh, balance, <laughs> balance. Au sein de votre relation amoureuse, vous ne cherchez pas à atténuer les choses. Vous faites, preuve de franchise. Euh, waaw euh, Lolo, ah tamit balance de parce que nag euh, dëggu ak li nga xam ne moom mooy téye sa ci li nga dafa balance ndaxte nag xam nga équilibre boobu rek en général nit ku dëggu lay nekk Scorpion vous vous révélez expressive presque excentrique

Verseau, vos émotions seront peut-être exacerbées mhm. par le retour de, d'anciennes querelles du passé. bien sûr ah ok donc euh, mu ngi noonu den nee en général nit bu fàttaliku rek soxor nit nous mm-hmm. fàttaliku rek soxor donc fàttaliku euh, waru leen ci benn wàll surtout yéen ñi nga xam ne boo leen fàttalikoo rek maanaam li naqadi woon bu yàgg ba ci ay euh, histoire yu xe yu weesu day nous te bu dellusiwaatee da leen di gën a te day gën a seen donc la romb na romb rek de passé le passé moom c'est le passé mm-hmm. poisson poisson ok, je vois. <laughs> je vois. passons, côté cœur, le noir. Le temps n'est pas au beau fixe pour les amoureux. Ah. Ne faites pas la confusion entre amour et inquiétude. Ah, ah c'est vrai que sentiment, mu yóbbu alors que. voilà c'est ça loolu day day am xam sentiment c'est un peu diffus c'est un peu confus. Mhm. sentiment sax kenn mënu ko expliquer. Mhm. kenn moo mën a expliquer sentiment. par exemple boo sentiment d'inquiétude. noo koy expliquer en fait dama inquiet da ngay wax dama je suis inquiet rek. mais mhm. inquiétude bi nous ko expliquer mbëggeel également nous le demee. kan nous le faram fàcceel lan mooy mbëggeel donc loolu rek la demee donc euh, moi tax ñu ne leen euh, bu leen jaawalee mbëggeel ak loo xam peut-être que da un euh, am peut-être ci jamono ji euh, am envie nek ken wala bok ngeen xalaat ne boo leen toggee lu yag nekk leen ak peut-être que lambay dina ñaaw mais loolu ça n'a rien à voir bu leen tax bu len yakamti euh, soñu ba nga xam rek ngeen dugg ci lo xam waru len fa dugg mhm. wala ngeen euh, lëkkaloog ko xam waru len lëkkaloog moom mhm. yàlla baax na quoi yalla baax na voilà pour les poissons voilà Abdel merci beaucoup ci pelo bi de rien du tout <laughs> c'était euh, tout pour votre horoscope du jour mhm. on vous donne rendez-vous si seen beneen horoscope lundi et bon d'ici là mi maa ngi di wax juma mubarak merci beaucoup audio de choc euh, ah, comme ah, tous les jours mm-hmm. mu nekkoon nag seen dernier horoscope de cette semaine xam naa nag doo jour kenn du ñëw suba samedi def horoscope bëri na bëri na bëriwul mais léegi doo ñëw suba def horoscope rek ñibbi préparez-vous demal yow hmm? Hmm. mën naa ne de mën naa nekk mën naa nekk kañ <laughs> donc euh, di ngeen amaat li nga xamante ne mooy seen horoscope lundi wala sa nga jox ko bëgg néeg bi mu ñëw defal la moom moo war di def ah, gars yi moom ah, dafa ah. bëgg lu yomb moom lépp dala koy bëgg a sax mm. mais du noonu xam nga tey des fois mën naa dugg mën naa jékki-jékki xam nga tëdd tëju waaw tëju xam nga nekk ci samay affaire donc yow en tant que bëkk nekk yaa mm. war a génn mm. waaw jël kii bi donc quand quand t'arrange waaw mais sànq ni nee na loolu seen bi bu bu dee gis moom amul confiance mais bu dee leneen am na confiance

yow nekkoo gâteau di xaar ci lekk na gâteau eh, lekk na gâteau gâteau tamit seen diggante mi ngi ñaaw de ah, léegi xanaa lekkat si ngay wax lekk gâteau xam naa petaaw yi la horoscope bi la da ngeen koy confondre rek moom mooy def parfois xam rek bu étoile yi génnee fii ah, ah. lune bi génn fii mooy tax ñoom ñaar ah, tension yi ak soleil bi mi ngi ñaaw de voilà univers bi la c'est comme ça on comprend voilà mi nekkoon li nga xamante ne moom mooy seen horoscope <laughs> du jour rendez-vous lundi incha allah ci beneen numéro ci horoscope mais bon tout de suite damay continuer ak euh, acolytam ndax nag su ma jógee ci kii damay dem ci kii mu waxtaane nee ma euh, li nga xamante ni moom moo jëm ci mhm. wàllu éphéméride léegi léegi. vingt six juillet Abdel tey lan lañ mën a jàpp ci li jot a xew. Mhm. jëm ci wàllub histoire en tout cas lu weesu. waaw dama xalaat ne sax tamit dañ ko war a pelloo ah euh, altine incha ñu daal di pelloo kii bi nga xam ne rek moom mooy éphéméride bi parce que nag dañ comme ni ñuy séddoo. Euh, C'est la ñu. ñu ñu mhm. mm-hmm. très bien gën na ko rek yow. <laughs> non dañ Sénégal jëm kanam kon ñu 26 juillet 1958 nous ah, euh, wax politique Sénégal fa la parce que ci bobulé c'est le moment du Mamadou Dia. Hein, euh, nga mm-hmm. xamné def mm-hmm. euh, defe naa au Sénégal yi xam nañ ko té naw mm-hmm. nañ ko euh, ci ci début indépendance Mamadou Dia nommé président du conseil de gouvernement du Sénégal ah ci bobu nommé donc par ordonnance du gouvernement français il sera confirmé à ce poste au lendemain de l'indépendance de 7 septembre 1960 mom deux ans avant que ñu am indépendance kon ça veut dire que kangam dëggantaan la mhm. ah, ci walu wu nek ñu koy delloo njukkal bu mhm. baax a baax naam xam nga ne euh, li nga xam moy politique comme sama mam ni ko doon waxee dafa salté mhm. c'est-à-dire euh, nit dina am euh, maanaam tooguwaay bu baax a baax mais nak am ennemi politique finalement koku yak ko ba finalement mu nek lo xam destin am destin yu day war lay am ah, donc c'est vrai que Mamadou Dia Senghor dualité bobu wax nañ ne bipolarité bobu dafa créé woon ben jalousie ba Senghor am nu mu def ba Mamadou Dia euh, am fu mu féete. Euh, mhm. finalement mais bon comme euh, c'est de l'histoire l'essentiel, li ñuy garder rek moy que né li ñuy garder rek moy que né Mamadou Dia est un grand homme d' état sénégalais. Mhm. un grand patriote loolu mom def na da war nañu ko mën a. Hmm. ah voilà siège am bopp. fële ne sama si bopp bopp bopp waaw sama nijaay ci biir foofu la dëkkoon. ok benn jour laag ngi nekk mag nag. waaw mag la mag bien sûr nag ah marqué Sénégal. Ah, man de man de man de man de man de su ma sayoon sax day nekk président de man ah, président man euh. am naa chance gis gis a moom moom. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. parce que am na ñoo xam ne président moom du ca la ñuy wax. donc euh, ah, dañ koy gis.

entendu la rek ci euh, réew mi day am solo ñu delluwaat si di ci waxtaanee waat. Mhm. Mhm. ban date mhm. dafa mel ni ci ci ci jamono yooyu Sénégal amoon na chance am ay grand homme yoo xam ne dañoo nekkoon. taxawoon con ngir mën a defar li nga xam ne mooy Sénégal ñëpp amuñu chance daal ci bokk ci li nga xam ne moom mooy kii bi euh, combat bi waaye nag am nañu ay on avait des grands hommes. waaw car macha allah ba léegi sax waaye nag jamono soppeeku rek. waaye nag ba ah. léegi. Euh, mm. fa ndox daan taa boo fa demee fekk kon nak mu ngi noonu euh, kon ñu koy ñaanal yalla nako yalla yàlla xaaree àjjana te voilà euh, accueillir ko dans le paradis céleste amin amin très bien acca ñu ñew ci 2007 bës euh, bés boobule Lambaay ñaawoon na lool hein bu ko fàttalikoo ñu bari seen xol day tank tàng ndaxte nag bés boobule le président français donc Nicolas Sarkozy ñëwoon Sénégal sa fonté saafonte mm. nak ci sa fonté ba mu daal di doxantu dem ba université Cheikh Anta Diop Mhm. le yëpp garaawul quoi parce que méttiwul quoi parce que mhm. étudiant lay dajale étu et tu mais nak la ca la ca la ca la ca doy que ne bés boobu dé dafa am ben discours bu mu tenir ah je lis euh, comment dire mot à mot ce qu'il a dit mhm. le drame de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire gaa yop nak ko pour la ci ci moment mais peut-être euh, xam mais après boo waté wax ci ci nga ak euh, ah, ko waxé ci temple dit, ci di Cheikh voilà. voilà bo mesurer dimension l'homme bi nga xam tu mom lañu université. déjà bo waxé lolu rek ça pose problème. non mais c'est c'est c'est c'est un affront bo xamné ne. Mhm. Euh, bon alors gars c'est vrai que après gars jëm nañu jëm nañu ki euh, la balle madame dès mm-hmm, mm-hmm. bon mais en tout cas il l'a déjà dit c'est ça ça restera dans l'histoire mm-hmm. le voilà donc ah, de toute façon de plus en plus. bu ñu génération ils seront encore beaucoup plus déterminés. à laver l'affront quoi. laver l'affront non non non. C'est intelligence voilà. Mm. tout simplement voilà nous ñu dem ci beneen date euh, malheureusement euh, date non tamit euh, c'est un peu triste parce qu'il y a un grand homme un grand mm. homme qui mm. également il fait partie des grands hommes du Sénégal il a été le premier ci à créer une station de radio privée

Mhm. donc euh, fondateur du groupe Sud Communication ancien président du conseil national de régulation de l'audiovisuel mhm. donc euh, voilà donc il sera d'ailleurs le parrain de la maison de la presse à Dakar mhm. euh, le le 26 juillet 2020 donc célébrer l'anniversaire de sa disparition donc mu 69 ans ci donc comme nous sommes un pionnier dans mhm. euh, le milieu médiatique sénégalais mhm. voilà donc il fallait saluer euh, l'homme saluer nu mu sax l'effort qu'il a fait parce que mhm. c'était pas évident ci jamono jooju mhm. daal di beddeeku carrément jóge ci li nga xam ne secteur public daal di bëgg teg ben affaire bo xamné day concurrencer euh, la grosse machine qu'est mhm. la RTS ah mais il a bien réussi quand même ah parce que nag voilà ci jamono jooju Sud FM ak euh, amono na doole bu baax dal parce que voilà c'était c'était une révolution ben instant voilà il est il est révolutionnaire dans son milieu ok aca euh, dernière date, encore un drame, mais drame bi bon c'est un drame encore plus dramatique Nam ben euh, ku faatu rek euh, ci euh, yàlla mooy dogal waaye nag mhm. bii nga xam ne moom wax le 26 juillet bu daaw bi rek mu nekkoon lu doy waar benn ab oto moo daal di këpp mhm. bus bu këpp ci yoonu Ngën Saar ci région de Louga 26 ah, personnes d'Adi fatou, ciy faatu mhm. mu nekk un accident de plus ci année 2023 est-ce que c'est l'année 2023. c'était terrible. tànk jër ci walu wu mais ci mm-hmm. accident amna am mort ay féminicide amna ay euh, les événements de 2023 mm-hmm. euh, événements yep mais bon euh, côté accident c'était terrible terrible terrible mm-hmm. terrible terrible on a naa am lim sax bu ma maintenant léegi après lire parce que li c'était assez évocateur de ce qui s'est vraiment passé euh, bon, donc pendant, pendant cette, cette année, cette, sombre année 2023, je vous le 31 décembre 2023 euh, spécial ca télé ba ma nekkoon maag maag laa urey ñu ngi doon 2023 euh, la mu àndal rek euh, ngelaw geek lépp na dem na dema dema dema dem jur ba maa koy ñu on le 31 décembre fële ca fa ñu nekkoon ci bërëb boobu mm-hmm. ah donc mu nekkoon lu doy waar bon alors justement kii bi taxi bi mais en tout cas c'était une énumération de tous les accidents qui a eu de janvier 2023 mm-hmm. ba mm-hmm. presque novembre 2023 donc ay accidents yu doy waar plus de 100 morts sur les routes du Sénégal mu nekk lu war. waar doona waar Abdel donc euh, tey tamit ñu amaat beneen événement hmm. niki démb sax hmm. laay wax mhm. euh, bu tragique mu hmm. nekk benn accident de route parce que nag xam nga ñun dañoo yàgg am dañoo yàgg a jooy bis mel noonu waay parce bu amee rek li muy jur automatiquement du du du jur lu baax parce que xam nga très souvent parfois ak choc mën a am. Mm-hmm. nit génn ci idem. Mm-hmm. sant yàlla nag sante ko yàlla. parce moom mooy dogal yi tamit ginnaaw am nañ ci wàll. mais heure bu amee rek am ji musiba rawatina ci nawet bi ñu nekk. parce que yi nga xamante ne bi ñuy jooy nii tamit bu defoon. Euh, bi nga doon lim léegi ci 26. Mhm. juillet waaw ci weer waaw voilà tamit boobu tamit juróom na fi tristesse boo xamante ne nii nit mënu la wax na mu toll. bii mhm. tamit ak ndax ndax accident du tuuti euh, bi nga xamante ne nii am na nit ki démb euh, ñu daal di si jot mu nekkoon euh, accident bu tragique. Mhm. nekk également mu amee fële sa diggante ndulumaa ji ak wurusoo gi la. égal gis nañu kii di njiiti réew mi daal di yëkkati ay kàddu di ah masaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo dund li ni mel. Euh, ci li nga xamante ne ni euh, jot nañ ko ci xam mm-hmm. donc euh, am nañu ci ay blessé

ana li waral li mel ndax nag yenn saa yi comme ñu ko waxee ci tali bi la yenn saa yi ci chauffeur la mhm. mais yenn saa aussi ci oto yi la mhm. donc day euh, am solo rek bu yi ni mel amee ñu xool saytu ana lan moo waral li mel day mën a mhm. permettre rek euh, ñu mën a éviter genre situation yu ni mel à l'avenir donc euh, Abdel Malick fi nga daanalee ci éphéméride rek dafa tombé nag ñu dund lu ni mel rek. Mhm. malheureusement malheureusement ba tax na faw ñu taxaw euh, wax ci daal di nag jaale itamit euh, famille yi nga xamante ne ni ñu ngi ci tis ak naxar ba fi ñuy wax ak yéen nii. Mhm. waaye mu nekk lu doy waar gaañu seen yàlla fëgg seen bopp. ba mhm. ñu delluwaat seen kër. yàlla na fi yem ñi nga xamante ne la ñuy wax ay blessé grave yàlla daal leen di yëkkati. ak ñi tamit am ay gaañu gaañu. Euh, yàlla yëkkati leen delloo leen ci seen ay yitte di euh, masaw rek ñuy ñàkk euh, seen ay njaboot ci billi accident. Mm-hmm. pourtant chaque fois de dañu naan plus jamais ça plus jamais ça. mais mm-hmm. bon mm-hmm. c'est vrai que ndogalu Allah subhanahu wa taala dafay ñëw saa su ne. mais comme ni ko waykat bi waxee yenn saa yi mel ni mbaa du ndogalu maanaam doomu aadama yi. ci benn instant ndaxte nag gis nañ ko fii la majeure partie dafay am négligence mhm. dafay am li nga xam ne moom défectuosité ci tali yi nga xam ne dafay xaw a doy waar surtout ci nawet bi voilà tali voilà très bien très bien yenn saa yi mu mhm. nekk également ci matériel bi maanaam auto yi nga xam ne dañoo mhm. trop tamit am na am na ay euh, maanaam part de responsabilité ci ci wàllu woowule euh, chaque fois dañuy joy visite technique yeeg yooyu chaque fois ñu wax chaque fois ñu ba daal di bàyyi mu jàll te chaque fois mu nekkaat la d'acuité il faut que nag ñu jug ci une bonne fois pour toutes pour régler ce problème là c'est ces problèmes de même que les permis yi nga xamante ne ni ñu ngi ci doon wax oui oui bien sûr voilà day am solo aussi pour ñi nga xamante ne dañuy daw une mm. distance yi mhm. Euh, également nek ay euh, chauffeur comme niñ koy wax di daw dëkk ak dëkk. Mhm. ñu xool rek ana ñan ñoo apte pour mhm. euh, li ni mel ñu daal leen koy jox. ak ñaata chauffeur ñu war a nekk ci bus bi. parce que benn mhm. wala ñaar doyul. ci bus bi nga xam ne def ay long trajet c' est terrible hein mais c' est nga am temps de repos. duñu am temps de repos duñu am temps de repos malheureusement. <laughs> malheureusement en tout cas Abdel merci beaucoup. pour ces dates am na solo lool ndax nag li ñu ci delluwaat li ñu ci delluwaat li muy fàttali ci histoire tey jii nii bëri na ndax que euh, comment il s'appelle encore euh, Sarkozy. waaw ñëw na fi beneen président également ñëw na fi mu mel euh, du benn am mel. mais à mhm. chaque fois rek heureusement am nañ tey jii xëy gouvernement boo xam donte nag bu xasee ba am am na te euh, du loo xamante ne danga koy mën a mais dinañ def le mm-hmm. tout ba défendre euh, li nga xamante ne moom mooy suñu ay gëm-gëm suñu mm-hmm. ay bah institution bah ak suñu ay nitu diine ak mm-hmm. kilifa aada yi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi merci beaucoup en tout cas euh, pour ces dates assez importantes importantes plutôt rendez-vous lundi incha allah incha allah y a pas de souci y a pas de problème pour d'autres dates bien sûr mën naa nekk Aïcha mi ngi noonu on est toujours dans votre matinale go matinal comme tous les jours d'ailleurs c'est du lundi au vendredi. Juma si vous venez de nous rejoindre, très rapidement, on va poursuivre avec li intéressé intéressé intéressé rubrique people. Cheikh Queen tay tey euh, fan la ñuy lan mo xew ci mariage da am hmm. lan am lune de miel am <laughs> clip daa hmm, des am artiste bu bess am gan mi. artiste des non yow office ñoo leen mhm. produire. yéen a ngi bëgg a yéex doon gaaw. waaw balaa gars coppet ah. coppet dénk naa ko Abdel coppet rek yóbbu. <laughs> Mhm. Hmm. Mariama comme ni ko waxee tey euh, seen euh, rubrique euh, people tey moom lu de miel lune de miel la ñuy waxtaane tey. Hmm. lune de miel bu bu amul fenn sax. Hmm. mais alors xam nga leen doomu yàlla te da ngay toog am na ñu naan ngi dem États-Unis ñu ngi dem Dubaï ñu ngi dem Dubaï ñu ngi dem Maroc ñu ngi dem fii waa préparer say affaires yu kenn xamul mais aussi am na ñu dem Sine Saloum waaw waaw Sine Saloum voilà dañuy dem foofu yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp waaye dafa am euh, loo xam ne moom euh, ci xale dafa mhm. dafa dafa dafa dafa dafa raar ndax ñu takk la nga def fi xew mu ñëpp di coow ñëpp mm-hmm. yaakaar ne fu mu ne ñu ngi lay seen Chine ñu ngi lay seen Dubaï ñu ngi lay seen fépp ñu ñëw seen la biir màkk mm-hmm. waaw kooku loolu la Zeyna def ak Adama bi macha allah. Mm-hmm. Zeyna daf ñoo bëgg a rey rek. daf ñoo bëgg a rey. <laughs> Oh, nañu fi une semaine duñ ko nangu duñ man maa ko moom macha allah xam nga loolu loolu loolu loolu mooy dafay wane ne xew naa xew bu rëy. dama war a dem sant suñu borom. Mm-hmm. ànd ak sama borom kër dem ba mm-hmm. fële. Mm-hmm. sant dem ba màq sant suñu borom te loolu la def. macha xale bu ko neexoon tey jii. nga loolu man damay diri valise. ah man maa ngi seet feneen waaw waaye fu mu nekk nii ouverture bi mu jël xamaa ne tey ñu bëri dinañu changer vision wu. waaw waaw parce que parce tamit sant yàlla la xam nga looy xaar. di xaar di xaar suñu boroom ñëw. Euh, sottil ko mhm. donc amoo lu lu amoo loo leen rek nga war a def mooy dem sant suñu borom mhm. te ñi gis ko fan yi ay image yu rafet moo jëkkëram bon comme ni ñu koy xee chaque jour dañ leen di ñaanal saa su nekk suñu borom jàppale leen mhm. suñu borom sàmm leen euh, musal leen ci làmmi nag cat ci seen sëy bi vraiment man de couple bu ma neex la ah yàlla na yàlla lafal cat ay xale lañ. macha allah lu ci am lu particulier rek mooy que ni ñu di ko gis. comme ni ko waxee tey jii amaana comme mm-hmm. li mu def ci xew mu rëy. nu mu mm-hmm. toll ñu ngi ko doon xaar encore mu andil ñu yeneen. image yi yeneen waaw ah, gis ci yenn kii yeeg yooyu mais nag tey jii nii day euh, day jo day fàttaliwaat rek nit parfois fi nga koy foogee ak euh, amaana fa muy génnee ak fa muy mm-hmm. nekk da dul wute. donc di ñaanal yàlla nag ndax bépp jullit ñaan nga yàlla daal di dem ci bërëb boobu rawatina boo ci ànd ak sa borom kër. wala am na ñu fa dem ànd fa ak sa yaay ak say euh, yeneen tout cas réponse bi xam nga du nekk benn boo ànd ak sa borom kër. Mhm. ngeen dem nga ñaanal ko mu ñaanal la ngeen ñaan ci yàlla suñu borom. Mhm. daal di mhm. eh, yàlla tamit nangu seen ñaan musal leen comme ni ñu wax ñaanal leen jaboot ju barkeel ak amiin amiin amiin waaw demee waaw euh, muy surprise. Euh, bien sûr c'est vrai que euh, li nga xam ne moom mooy mbetteel bi defe naa ne ñëpp ko ñëpp ko yëgandoo. ci wàllu woowule. Euh, man mii newoon naa lune de miel maa ngi xaar parce que dama bëgg topp ci affaire yi. topp dem fekk gis ko ci yóotu yaag gis ko ci jet privé yaag yëpp seen ah, après mais quand même lu mu mooy voilà waaw mm-hmm. mooy ça veut dire que jeexagul loolu moom c'est normal après à suivre après ba bu ko neexee kii mais après mariage juste demoo feneen yow xalaatoo lu lu euh, dem sant umra voilà euh, sant sant suñu borom donc loolu c'est à saluer

Eh, yu xaw a fait divers yoo xam ah, ne man maa bañ maa bañ xarum feelu la ba pare maa bañ lan moo tax lan mu mu yem fii nii ci people bi doo fi mm. yem de doo fi yem loo bëgg doo fi yem bàyyi mu feelu ko rek ah sañse bi ngay nëbb gars yi pour lan la

blazer. Euh, waaw car macha c'est gis ngeen sac noir bi ah a rek assorti ah. euh, bon alors nous, euh, nga ñun dañoo mm-hmm. ñun Dakar TV xam nañu prix bi xam ban boutique parce que en fait beaucoup def publicité te bëgguñu xam nga mm-hmm. rek am na xam mystère c'est mm-hmm. encore mieux li ñu a wax rek que très tendance. Nous, ah def nii en Europe voilà gis nga boo xoolee euh, ci photo yi nga xam ne teg naa ko ci sax euh, mooy yi photo yi le euh, dafa nekk également donc de illustrer que ne bii nii style bi nga xam ne moom la mm. blazer bi ak ceinture bi autour de la taille mm-hmm. mu nekk mais top actuellement ci bokk na daal ci meilleur sañse yi nga xam c'est en Europe actuellement donc deuxième dame def ba mais tant mieux que xam ne dañ ko doon xaar parce que boobu ba léegi ñu ngi xaar mu génn mu nekk mm. sortie officielle boo xam ne dina ci doon ànd ak njiitu réew mu dem te comme li ma yaakaar naa xol sénégalais yu bëri sedd nañu ci ginnaaw bu mu génnee ndax xam nga sénégalais dafa mën sañse mhm. boo nekkee réew bi réew boo xam ne dañoo mën sañse mhm. boo boo boo boo ñu waree jëmmal surtout boo ñu waree jëmmal ci mhm. biti réew donc ñun dañ lay bàyyi xel voilà donc daf ñu représenté représenté moom ñuy waxtaanee. voilà xam mm-hmm. nañu dëgg la si co ci ci solinu cosaan ak aada. ñu moom mais aussi. ñun dañu am set euh, yàlla daf ñu may mën naa ni yàlla moo ñu ko may que euh, fu ñu dem nag mhm. dinañ wane suñu bopp bu mhm. baax a baax te nag mhm. Sénégal ah am fi ay soxna yoo xamante ne ñu ngi fi di jiite ñoom itamit bu ñu soloo nii euh, ñu kontaan donc duñ ne daf ñu bett ndax nag amoon nañ tuuti aperçu ci li nga xamante ne moom na daan génnee ci sortie yu ndaw yu ñu jot a def ci biir Sénégal donc en tout cas premier bi daal frappé nañu premier sortie bi moom frappé nañu moom. macha allah frappé nañu. ko ko koy deuxième na ñu xaar léegi ñu xaar premier daal lu muy maye moom tamit prochaine fois. non maye woon na brocard bu baax. waaw ah, si si si si voilà Sénégal également ñu salué ko. waay waay waay waay léegi daal lu ngay mën a xam daal mooy Sénégal li gars naa naan mën naa ci biir boor mën naa ci bee boor. Mm. ñun taxawaay boobu lañ toogee fu mu mm. toll nii. waaw mi ngi noonu nag voilà ah loolu allah. Mhm. Ah. première dame fële fee deuxième dame ne ko xaaral ma feerloo ci elle amul amul ah, leneen ah, amul leneen ah, man mhm. suñu président laa bëgg kon nag ñi nga xam ne euh, tollaguñ ci ñu deux gallons ñu ngi di xaar ci deux gallons yi rek ah kay ah loolu dafa am dax gi daal <laughs> borom galon yi la ñuy kii la ñuy madame du déglu ah, loolu borom borom ba pare borom galon yi borom galon yi en parlant de borom galon sama benn frère. waay Jodou Bay sa waale Abdou Karim moom ñaari galon la am te moom gendarme la ñaari jabaram fi ay gendarme lañ. mooy fête anniversaire bi tey moom moo di chef yi dina bëri ci kër gi de. <laughs> moom moom loolu moom loolu la liggéey waaw. macha allah moom moom kii la. gendarme ñaari jabar hmm. rek gendarme anniversaire joyeux anniversaire à toi Abdou John sama frère bob hmm. ah, dina ci kër gi. <laughs> <laughs> chef oui chef chef chef les enfants seront bien éduqués en tout cas. parce que ah, comme on dit voilà donc euh, très rapidement. Hmm. Abdel amna ñu peut-être. ah bien sûr sam ci sama woykat bi. Mhm. sama woy non non sama kat bi balaa ñu fait divers people bi des. Ah, ah, ah. mooy sama kat bu mag bi nga xamne ne man day sedd sama xol. Hmm. bi mu tambalé ci ba muy tambali donc ci ca premier woy ci Jeng hmm. sala ak li nga xamne mom moy benen bu amna benen bu ñu woy également. Euh, fàtte naa woy waaye Ami Collé laay wax de Ami Collé Jeng. donc xamna né comprendre ngeen sax bu ma nee Jeng sala ngeen xam fu may waxee donc Ami Collé Jeng mu am.

Mhm. très belle chanson également voilà kon nous mu ngi Ami euh, people suñu dernier people ñu koy ñaanal euh, li nga euh, dans dans la dans le reste de sa carrière mm, aussi ñu ngi ko koy ñaanal ndax nag ndaanaan la ci biir ndaanaan yi voilà yaakaar naa ni ba muy euh, bégal fans yi dafa yàgg mhm. tey tamit euh, comme on dit nattu euh, ci du wees mhm. ci doomu aadama te ci mhm. jaar jaaru doomu aadama la nekk rawatina boo nekk ci le milieu bu mel ni nek artiste rek neexul donc dañ koy ñaanal yàlla rek mu daal di ñu revenir en force comme on dit te lim ñu waajal également ñu ngi koy xaar. Mhm. Abdel dama lay bàyyi rek euh, ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu fait divers yi. Mhm. waaw waaw waaw fait divers rek euh, comme ni ko euh, rappeur bi waxee. fait divers fait divers fait baal ma. Mhm, kii daa génn kër gi dem <laughs> dem ba fële. ca tali ba di topp kaa. léegi léegi yow fait divers bi li nga fi nga demoon noonu lan ma fa xewoon. man keñ mën de xam naa ñeme naa topp kaa. daa ñëw de di jooy. waaw waaw waaw waaw ba pare ñëw di coow li kay de man kay kaw laa nekkoon ci kaw terrasse mais bi dégg ah. ñu daw nit ba ma demee xool doon kii en fait euh, ñaari xale ñaari xale xale ay jeunes lañu ndeysaan ay xale lañu ay xale yu góor. Mhm. dañoo sàcc ordinateur. yor seen moto doon daw. ok voilà xam naa oto dañ dafa am oto bu leen topp oto boobu rek daf ba mu mbëkkee daf ba mu leen mbëkkee ñoom dañ doon jug di daw ñu jàpp leen mais dañ leen patam patamee dóor leen bi attends oto leen bëgg da leen parce que xam naa oto bi ñoom la doon topp pour jàpp leen moo tax mu mbëkk leen mais loolu saa yi loolu euh, délit de tamit non non ça se fait kii la mais moto bi la laal ah daa laal moto bi la laal ah, pour ñoom léegi ñoom ba jugee euh, bañ ba ñu jugee daw dañ leen jàpp. Mm-hmm. ordinateur lañu sa mi nekk mi nekk ay xale yu ndaw voilà mm-hmm. mais bon Abdel xam nga aussi tamit euh, dañu nekk ci dañu waxante dëgg. Mm-hmm. gis nga fu mu nekk nii euh, dañ nekk vacance te parent bu nekk war nga mën a toog waxtaan ak sa waxtaan ak say doom. ba pare li ñuy wax bëgg-bëgg say doom seen bëgg-bëgg da ko war a yemale. doo topp sa doom ci lu ko neex. ba eh, xëy lor ko je suis tout parce que tey man ñi ma gis ñi ma gis ñi ma gis démb ñooñu ay xale lañu. ay xale yu ndaw lañu. Mhm. Mhm. man walaay ba leen jàppee du leen dóor kenn ki ba mu ko xoolee. Mhm. sama rongoñ da doon tuur. waaye. parce que ma xool ma ne tey kii xolu yaayam tey yaayam xolam du neex. naka lay naka lay dundee. bu fekkee yaayam xamul ne kii jëlkat la. donc choc boobu mu ko nar a def te muy nekk ñaari xale yu ndaw. ñu am avenir. te wala li ñu jël la ko jarul sax jaru ko te ñoom lenn leen moto bañ doon dawal sax la gën a cher ordinateur bi. mais bien sûr xam nga tey dañu ko gis nga nit man li ma wax chaque jour nit da ngay doylu. boo amee nga xam ne am nga mhm. boo amulee nga xam ne amoo nga toog muñ parce que tey day neex suba mu naqari mais eh oui mais oui ah. tey aussi euh, moo tax à chaque fois toog di waxtaan ak say doom ci lu bari mhm. sa doom du lu ma bëgg rek nga ne ko par la force danga koy am am ñoo xamante ni keroog ñu ngi koy wax am na xale yoo xamante ne ni ñàkkuñu dara seen kër waaw mhm. ah, mooy fii sa fii sa papa yeeg ñu dara seen kër waaye xëy na àndandoo tàmm lu bon ak rek euh, euh, du ma ne sax fukk de jeunesse mais xëy na entourage rek mais am na yoo defuñu parce que dañ soxla wala ji parce que ñu ngay wax ni ay xale lañ. te xoolee du ay xale yoo xam te xëy na dañuy fanaan ci mbedd te bizarrement boo leen xoo voilà boo leen xoolee di nga xam ne ñii xale yi set lañu boo leen mm. xoolee di nga xam ne di nga ne ñii li ñuy jël voilà ñii li ñuy la ban la lañ amal di jël loo xam ne tey jii bu ñu ko demoon jaay tamit ñàkk fayda lañ koy jaay lor bo dañuy lor seen bopp lor ci ki ñu jëlal alal bi mm-hmm. xam nga en li ci gën a doy waar mooy que ni tey jii nii buñ la jàppee yow mi def loolu mer bu ñu amoon ci ñu jot a rëcc yëpp. c'est ça dañ koy dañ koy fay ci waaw bien sûr xaw nañ leen rey. voilà loolu moo tax bu jàppee sàcc balaa balaa yoon di ñëw police di ñëw wala wala wala gendarmerie di ñëw day fekk yow moom say mbir bu la yàlla ñaanalul tuuti rek. Mhm. leneen la ñuy wax. dañ leen mujjee amaana dina leen jàpp mais après faju ji. donc sàcc tamit ci benn benn oto sax bu dul loolu leen di rey. sàcc tamit baaxul. donc comme on dit sàcc day tas yaakaar amaana li ñuy jël noonu kooku tamit ni muy def ba am ko mhm. li ci liggéey ak lam lam ciy liggéey lam ca denc xam nga de leen buñ leen jàpp da ngay gis buñ leen jàppe doon dañuy naan baax na si parce que da ngay ni koo xam day xëy suba teel mhm. nekk di dang-dangi ba yenn heure yi ah mhm. jël dajale lu mu yoroon yëpp jund ko benn affaire bëgg ci moom tamit loo xam ne din amaana si lay suturloo kenn jóge feere ñëw nekk ko coppet jël yóbbu loolu tamit neexul ci xol neexul ci xol ñu waxante dëgg. bon bien vrai que ne neexul ci gis-gis. man dem bi laay dama jooy. non non jar na ko non jar na ko dama lu bëri jàpp boo amul xol nag bul dem. mi mi ngi noonu parce que dafa bon dafa dafa dafa daw yaram daal. Mm-hmm. nga xam ne ñii am nañ avenir war a tey xëy def ni seen morom. dem liggéey yi wala xool leen lu ñuy def waaye wër di sàcc. Mm-hmm. bañ a jàpp la tey dóor la ba ngay bëgg dee. xam nga ba pare da ngay utal sa yaay woy boo xam ne du fay mukk. c'est ça exactement. c'est ça malheureusement waaw te amaana ne tey genre yooyu seen yaay boo leen gisee du ñu sax wax. Mm-hmm.

ñu ñëw waa ji daw bàyyi fa bàyyi fa waaw xale bu jigéen bi parce que xam na ni xale bu jigéen bi du riposte day joxe rek ñu bàyyi ko waaw mais moom par contre bu fa nekkee day mën a riposte baa ñu baa ñu jàm ko parce que loolu nit mën na ko xalaatee noonu mhm. mais tey jii nii xale bu jigéen boobu dañoo jël li ñu soxla ci moom perruque téléphone lépp yóbbu mais bu leen fekkoon ci benn état boo xam ne lu si dund. Mhm. leneen mën na ko ci fekk mën na am leneen waaye mën nañ la jam. exactement mbaa ñu xot la wala la défigurer la. et ainsi de suite te bu mhm. boobaa tamit musiba naaru laa rek donc ci digg tali bi fépp fépp sécurité bi nag mu ngi fépp mais bu ñu ci gën a jàppale itamit ñu jël. Mhm. am na solo Aïcha bu fekkee ni itamit. te nga bàyyi di seetaane ji man kay bàyyi. <laughs> bàyyi leen di seetaan dégg nga waaw <laughs> seetaan seetaan la seetaan jigu wala boo nga taxaw du loin ngay séentu ah, mais su ko defee tamit mais maa ngi lay boole mhm. Modou Diouf dama doon bëgg mu ah, naan maa ma ko sax voilà mhm. ba pare gis nañu aussi tamit euh, fee ca dëkk bu tedd ba ci waawoon mhm. euh, ñu jàpp ci benn waa joo xam ne euh, dafa nekkoon ci néegam di defar ay vinaigre ak kii Euh, eau de javel. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw vinaigre léegi nag man moom lu ma jaaxal mooy vinaigre yëpp dafa am benn étiquette bu mu am. Mm-hmm. bëgguma tudd tur bi <laughs> waaw mais man avant man ba ma gisee automatiquement dama ne kii fan la jëlee étiquettes yi. ah dafa am ay étiquettes yooyu noonu yooyu noonu yooyu noonu may bañ a tudd. xanaa def daf ci waa waaw eh, bëri. léegi ñu léegi après nag si si ngay gën di seetaan di xool nag te moom da daan dem di for. Ah, da koy for foree ba pare rax ba mu set ñëw ci sotti ay vinaigre te kenn xam boo xoolee ndox mi kii bi vinaigre bi yow doo xamuñu sax voilà ba pare wax ma loolu mais xamoo sax ni ñuy composé seen loolu xam nga loolu xama moo tax léegi fu mu nekk nii kenn wératul parce que xam ñu lu ñuy dugg suñu biir c'est ça xam nga dañuy ñëw femmes lu baaxul mais mais produit yi ci boppam parce que da ngay dem boutique bi dafa mm-hmm. jaay ma benn bouteille vinaigre mu jaay la bouteille vinaigre nga mm-hmm. ko mais yow mënoo xam ndax vinaigre bi nga jënd bi bii mhm. baaxul xam man mën naa def lu mu dem na dama gis benn boutique ne ko carrément ci société bii laa nekkoon fi amaan na ko du dëgg su ma defaree samay affaire ñoo jox ko moom muy jaay bu pare moom ñoo euh, kii ma surtout nag li ñu koy jaayee prix te xam nga jaaykat yi tamit am na si ñenn ñoo xam ne ñoom nu mu gën a yombee rek <laughs> kees leen gën a man de boobu noonu man fu ma ko gisatee sax du ko laal ndax xaw ma ah léegi léegi amatoo ci amatoo ci confiance. ba pare couleur bi ci boppam daa nuroo couleur. benn la non mais benn la affaire nu xamul nu mu ko ah, defaree. daal mais ba mu rafet. ah loolu kat boo demee dañ lii dañ koy du ko da nga naan original bi la ah boo demee for bouteille. waaw ñëw raxas ba mu set def waaw ñëw defar sa lépp boo demee boo nee lii du moom. duñ la gëm ko fa également fan yi passé ci ndox mi. am na tamit euh, loo xamante ne nii takk dee yi defoon nañ ci liggéey bu am solo. Mhm. surtout service d'hygiène ci lañ dëkk ci lañ dëkk di ñu ko solal surtout ndox nag ndox nag moom moom xam nga vinaigre oh, sax di nga wala ainsi de suite en plus du chaque ko ndox dañ koy naan waaw ah, am am na am na ndox yoo xam ne da nga ko daan naan bi am benn son xet du benn xet boo xam ne voilà da nga xam ne lii ndox mi doy na waar loolu sax lu mu doon waaw bu yàggul gis nañ ko ci crème glace ah, yi xale yi lu nekk la ñuy gis voilà kër gu doy waar waaw si tamit ñooñ di def loolu tamit ñeme nañu yàlla ah, daal en parce que loo bëgg-bëgg xaalis tam mënoo bëgg mm. ba lor doomu aadama yi moo tax léegi kenn wératul ah. da ngay xëy di jàng jàmmat ay tànk jàmmat ay ndigg jàmmat kii man fu nekk tànk yaag ndigg yaag yëpp day met mm. mbaa da ngaa nekk lekkatu glace ak crème mm. loolu tam jëm <laughs> yow lekkatu glace bu mag nga ah da ngaa mën xam booy wax loolu Abdel daf may topp <laughs> en ah, ko def ko yemale ma xam naa ni laataa ñu jeexal rek itamit On wax ci li nga mhm. information Euh, mu nekkoon euh, ki nga xamante ni rek euh, dafa torturé woon employé am ci ab ñàkk déggoo bu ñu amoon. Mhm. jamono bi nag ñoom ñaar maanaam chinois bi. ndax nag chinois la woon dal nañ koy tëj mhm. li nga xam lu toll si ñetti weer prison ferme yu mu war a tëdd. Mhm. aussi defar ko benn amende bu toll ci 5 millions yu mu war a fay. ñu bëri na ne sa 3 mois dafa ndaw. voilà donc il fallait que parce loo xam ne la nit ñi ngi ci doon bàyyi xel. mel parce que nak euh, liggéey dans sa doole tay ji ni bu bu buñ ci dalé rax ay door mom mm-hmm. mm-hmm. nga ba nga dem bay voilà voilà <laughs> té yoon amna ci dëkk bi mm-hmm. aussi il faut ñu respecter ñi nga xamantene ni buñu togul ci bureau yi tamit euh, ay kat lañ di dans sen doole na sax ñu tok ci bureau yi nit mom du lay liggéey rek c'est pas euh, c'est pas lo xamantene dang ko koy may wala nga koy sarax donc échange la nga soxla ah, nangam bi ci mom nga ko mëna amé am ci dégo gënal na la xol nga ko bam doy la ngeen ngeen tàmbali liggéey donc dañuy respecté li nga xamante ne moom moo tënku ci en tout cas li leen lié muy liggéey bi. Mhm. donc euh, Abdel. waaw mais mais moi c'est vrai que nu mu tudd sax euh, euh, parti euh, bi nga xam ne ñoom ñoo doon représenté victime bi. Mhm. ñoom ñu réclamé un an de prison ferme. Mhm. ak li nga xam ne moom mooy cent millions. ci ci de dommages et intérêts finalement li procureur bi nga xam ne moom moo àtte daal di daal di def daal di tranché trois mois ak li nga xam ne mooy cent millions de dommages et intérêts. mu nekk loo xam ne également ñaawlu woon ko ci tàmbali bi ndaxte waaw loi deuk dem deuk mhm. di imposer ces lois te mhm. dëkk boobu am loi tamit mhm. euh, bon il fallait que nous réagir ben instant ah bien euh, sûr bon alors je sais pas si euh, la réaction est à la hauteur du délit mais en tout cas daal heureusement que am procès ba final mais ñoom sax dañoo nekkoon en prison parce que boobu ba léegi ñu dans les lois de la détention comme li ci des xam dañ koy purger après la di génn justement xam nga comme loolu la ñuy wax rek tey jii nii du ci di ci wax parce que on en va des cas et des cas peut-être moom nit ku weex la euh, yàggul bu yàgg lool gis nañ fi mhm. ministre bi ñu dénkoon yi tamit wàllu liggéey bi euh, ci benn entreprise de la place boo xamante ne tamit ña doon liggéey ñu ngi doon jooy même mhm. condition de travail peut-être cas bi différence bi ak euh, sentence bi mooy amaana am na lu leen jotale mhm. te am na ko am tool balaa action bii di am gën a tamit bu ñu xoolee ci loolu moo tax bu verdict bi joxee lii aussi ñu xam ni yoon moo ni mel te aussi parfois du lépp rek nga mën a am comme information mais aussi complice bi man complice bi moo ma gënoon def kaa. Mhm. complice parce que le le gars yi n'était pas n'était pas seul chinois bi nga xamante ne ko waaw ki ko doon man kooku man kooku kaa moo ma dépassé woo. ci mbir mi voilà dañ ko naxarlu a baax. yow yow. te liggéeykat comme yow ah. moom moo ko. Ah. yow doo chef. même boo nekkee chef dafa ah. parce que interprète la parce que moom xëy na dégg na euh, euh, yi nga xam ne mhm. dañ fa ñëw donc ça veut que moom il se considère déjà. <laughs> comme comme comme ñee comme chinois quoi benn instant. <laughs> peut-être dafa yaakaar ne après. gars mm-hmm. dañ koy may euh, visa pour mu dem euh, Chine daal di fay dëkk. moo tax mm-hmm. muy góorgóorlu loolu waaye nag góorgóorlu bay lor say waa am na ñu mel noonu de. waaw waaw yéemi na. ki ki ko doon filmé tamit euh, c'est vrai que filmé bi. motax ñu gis lepp way nak film itam di seetaan yenn yi non mais amna solo man je suis d'accord hein, parce que li bu ko filmé woon fan nga xew waxee kenn kenn am preuve parce que ki di ki ki di comploter avec son patron mm-hmm. imagine toi yow la victime mm-hmm. kan mo la témoigner kan moo la kan mo moo la témoigne nak ki ko <laughs> filmé non peut-être c'est la seule façon bu koy permettre mu mën ko dimbali parce que xeyna bu waxoon ñu daaxoo ñu daaxoo ñu wala sax liggéeyu fa mm-hmm. donc Euh, parfois euh, comme on dit du lépp la ñu mën a wone mais lii nii lii nii moom xam nga lii doo ko teg ci table bi mukk ñu naa gars yi weddi ah, waaw kii du moom du mhm. chinois bi ku ñuul mhm. la waaw waaw moom dëgg la donc moom euh, moom feeñ na ci lool mhm. donc ñu dem ci nuance yi baax na comme ni ko Modou di defee waaw nuance de blanc et de gris <laughs> dernier point bi nga xam ne moom la ñuy jeexale rek Abdel mooy également foudre bi nga xamante ah ne ni rey na benn jeune malheureusement ci bi nga xamee ni ñu ngi doon amal seen benn match de foot ci jamono nawet lañ nekk. donc mhm. euh, moo tax ñu war a moytu bu baax a baax a baax. waaw ndaxte nag euh, peut-être ay re am na ay réflexes yoo xam ne miinaguñ ko. Mhm. il faut ñu jàng tamit euh, naka la ñuy doxalee bu maanaam bu fekkee dënu dafa am. Mhm. dafa nekk lu am importance. gars yi comprendre ñu ba léegi am na ñoo xam ne ci suuf garab la ñuy laaxatu. c'est très dangereux. <laughs> loolu loolu moom. il faut pas faire ça. parasol également bu amé foudre bu talal mhm. mieux vaut que toi moo gën mhm. non bu ko sa xalaat non c'est parce que chat bi nga xamné ne le surtout da fay attirer mhm. donc euh, muy ci euh, muy muy muy également ngay daw même bu né ne nga nekk ci benn champ euh, manam terrain vague tamit wóorul bo nekkee en mouvement rek affaire day mel ne da lay day attirer ki parce i li ñu naan courant bi nekk ci waaw moo tax aussi bu la fekkee nga accessoiriser ci yenn. waay waay yenn yenn bijoux yeeg yenn téléphone yeeg genre et cetera ak téléphone lépp ne ah. daal. Euh, lii aimant la lii courant la donc il faut ñu koy éviter. bu baax non ñu jàngale bu baax a baax. Uh-huh, am uh-huh. toutes les informations. loolu c'est di ko wax sax pour ñu xam parce que ñu bëri xamuñu loolu. Uh-huh, malheureusement nag télé yi la ñu war a utiliser. voilà pour di kii waa waa ak yeneen tali sax dañu ko war a jàngal nit ñi léegi. waaw am na mag ah, xam ne mënuñoo jéggi tali ba léegi. xamuñu ban exactement lu mag ñëpp am na ñu bëri xamuñu. Ah, ak passage piéton Euh, tey conducteur ah, mais bien sûr parce que du du du du rek en tort. passage piéton a ci se euh, droit de traverser, mais <laughs> attends duñ la ko may duñ la c'est ça parce que y ci yenn distance ñu hmm. passerelle. donc ay ay ay passage de piéton moo fa. am nga xamante euh, conducteur dafa war a taxaw hmm. traverser mais c'est compliqué. dañ koy hmm. et pourtant mi fi leer na ñu chauffeur mi ngi koy gis. Ah yow mi yaa ngi koy donc effacé wu la réerul demul fenn aussi. comme li nga wax rek am na yoo xamante ne ay programme la mm. yoo xam ne amaana war nañ ci mën a. taxaw bu baax ah, jàppale gindi parce que yu bëri ñàkk xam la également. mais oui bien mm. sûr comme euh, par exemple nga nekk ci biir oto oto bi fees dell kenn defayir maanaam kenn ki de kenn daal di daal di xëm. Mm-hmm. Ah, kenn ñu bëri ñu xam comment réagir par rapport à une personne. li ah, si si si si. doo am ngelaw doo am ngelaw doo am dara pourtant même loolu sax de ñi amee problème. Euh, cardiaque ñi amee problème yi dox rek daal ñooñu ñëpp xam nga bu nekk loolu yëpp dañ ko war di toog di jàngale la ñu fekk ñoon lay dimbali fekk ñu ngi lay a soxla air donc il faut que ñu def ci ay euh, dimbali sa bopp tamit da ciy am solo parce que parfois nga gis benn bus bu fees ba nga mm. xamante ni place amu fa yow sa mayu la nga nekk foo xam ne amul mm. ngelaw mm-hmm. mais comme bëgg nga yegg rek mm-hmm. donc mënoo dem fii fii nii Euh, nga am ci diggante bi ay jafe-jafe mhm. mën nga ci xamoon nga ci sa sa sa santé mën nga yegg ba sa kër tëdd sa santé gën a aggravé donc mhm. am na lu bari loo xamante ne ni également war nañ ci mën a euh, wax jàppale euh, nit ñi jàppale suñu bopp ndax nag ñoo bokk réew mi te bu ñëpp nekkee si jàmm rek ñun tamit ñëpp am jàmm en tout cas bu fekkee ni da ngeen ci bëgg a dolli yeneen seet nag ngeen seetal téléspectateurs yi ñu tëj mhm, man de en tout cas gis naa faatu mu am ay millions yu bari loolu moom gis naa ko ok ah, gis naa Mariama également am euh, euh, ginaar boo xam ne dina ko saaf bu ngoonee. <laughs> waaw loolu gis naa ko. tey Cissé Cissé. <laughs> mbayeen yeeg mbayeen <laughs> yeeg mbayeen yeeg yi moom xam naa ne mm. moom tey ñu ngi kii si ne la simi mais ñu tamit ngir yàlla ñëw tamit la kii yow da ngay kii visionné ginaar yi muy wax nii c'est pour mm, demain. à ah, partir de ce soir. day mm. commencé mën na dem këram à tout moment ñu def def ko visite surprise. Mm. Mm. loolu mën naa nekk mm-hmm. voilà mën naa nekk ba tey voilà. bien mm-hmm. bien bien bien bien bien bon kon nag. Euh,

benn congé bu ndaw de deux jours ndax nag ñu ngi ci àjjuma euh, bu àjjuma jotee nag dañuy daal di euh, wàccee suñu ay euh, en tout bagage yu ñu leen andiloon ci semaine bi rek dem recharger andi leen yeneen en début de semaine ce sera lundi incha allah. ma bàyyi rek sama naataangoo yi ñu tàggatoo. waaw waaw tàggatoo bu dul tàggatoo. Mhm. man a tàggatoo bu jot dama xaw feebar. لو خيو راح نموت تحت دوزول يا قول بريول عارف انا في داو دي خمام منك تيليسبكتاتير دفع ام بين كي بين courant buy daw suñu diggante connexion benn connexion ok voilà voilà mi ngi noonu moo tax su ma war a tàggoo ci àjjuma ji rek damay xaw feebar mais bon comme ni ñu koy waxee rek deux jours la deux jours yàgg na yàggul yàgg na ci man waaye xam naa ne tamit mun ngeen ko dinañ ko dinañ ko gérer amul benn problème bon d'ici là ñu ngi leen ñaanal bon yendal ak jàmm ba par di leen wax ñu ngi leen di souhaiter un bon weekend end tàggoo budul tàggoo lundi yàggatul d'ici lundi incha allah bu neexee suñu borom et d'ici là portez-vous bien ngeen xàppi. Mhm. c'est le week-end surtout voilà c'est le week-end nañu dem. voilà merci beaucoup. Mhm. du <laughs> de, de, de, de, de, de sañse, de noir et de couleur. Oui, ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Mon euh, un hasard, bon, xamné, le hasard fait bien les choses comme vous gagnez. Amon nañ fi raccord, amon fi raccord bleu, <laughs> dañu am fi raccord noir. Amon nañ fi tamit noir ah waaw kon mu ngi noonu kon kon tant mieux ah xol day gisee comme ni ko mhm. ñenn di waxee kon nag euh, gisee googule moom lañ ñu di dikk incha allah bu altine jotee rek euh, ñaanal leen encore une fois un bon vendredi juma mubarak à tout le monde et voilà que la paix soit avec vous incha allahu taala kon nag jaajëf ma sama gars incha allah amiin ba ajango ajango ajango ajango ajango voilà a avec qui Avec qui Avec qui, avec qui quoi <laughs> Avec qui Je n'ai rien ah, ah. quand moi, à demain Vraiment. Ah bon ah, Django, deux fois. <laughs> Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est un plaisir de vous avoir avec nous durant toute cette semaine. On vous donne rendez-vous ce lundi. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à vous et euh, Juma Mubarak.